danoon def remise de diplôme remise de diplôme xale yi xale yi nga xam ne leen tàggat ci énergie solaire jël fa nga euh, formé nañ ci euh, quatre-vingt-dix personnes yoo xam ne ci biir Jaxaaw ñu dëkk ak environ ñu formé leen ci énergie solaire euh, pendant plus de quatre-vingt-dix jours waaw mu nekk par vague de trente personnes ñu formé leen en énergie solaire donc liñ ci jublu mooy utal xale yi liggéey parce que xam ne ne xale yi amuñu benn formation da leen gis ñuy taxawaalu am na ci am sax am na ñoo xam ne ay taalibe lañu jël nañ leen former leen des sortants des daara ba jox leen seen andi lijaasa léegi nag ñu ngi leen jëm former en GIE pour utal leen ay daal laa loolu ci jublu woon. sélection bi euh, euh, dañoo jël envoyé au niveau du chef de quartier ci jàkka yi ne bépp ndaw bu nekk yow biir jaxaw environ ba Thiali te xam ne amoo benn formation nekk ndaw ñëwal bokk ci formation bi c'est gratuit. waaw dañ lañ koy may parce que dafa am mécène bu nekk sunu ginnaaw waaw yal na ko yàlla jàppale moo financé lépp monsieur Ousseynou Sène Ousseynou Sène seen moo financé lépp bi ñu ko waxee tànqam loo ñu dañoo ñëw mun ne loo leen def baax na waaw li lépp lu ñu laaj mu yëkkati jox ko du matériel du xaalis lépp jox nañu ko alhamdulilah waaw formé nañu xale yi pendant plus de quatre-vingt-dix jours ba jox na seen lijaasa xam nga ne énergie solaire le chef de l'État euh, jël na ko au premier pour wàññi le déficit des énergies fossiles donc mu énergie solaire mu nekk loo xam ni actuellement c'est en vogue dans le monde entier donc président jiital nu ko ñu ne sunu ñu ngi béy sunu waar fii cu nekk ci biir jaxaw xale yi amuñu formation sortant des daara amuñu formation jël nañ leen sélectionné leen dafa leen formation pare jox leen seen lijaasa léegi nag ñu ngi leen di a former en GIE wat wax autorité bi ñëw jàppale ñu ah parce que li Ousseynou seen def fii jaxaw c'est la première fois. bi ma juddoo ba léegi am na fi cinquante ans musuma gis ñu def formation mi ngi soog a am mi ci kattan ak euh, baaxu Ousseynou Sène. El Hadj Ousseynou Sène euh, responsable politique APR fii ci Thiès Nord mu def fi ay réalisation yu bari ci emploi jeunes yi ci aussi financement jigéen yi. jàpp ci daara yi di jàpp ci école yi di jàpp ci euh, euh, jàkka yi di jàpp ci église yi surtout nag euh, kii islamo-chrétienne bi mu bi mu bi mu def nga xamante ni chrétiens yi ak musulman yi dañoo cohabiter loolu moom da ciy liggéey liggéey bu am solo waaw dañ cee liggéey liggéey bu am solo waaw jigéen ñi aussi mu defal ñu ay financement ñoo ngeeg suñuy leget ñoo ngeeg suñuy kii yoo nga xamante ni avec yi loolu lépp moom moo ko moo ñu ko financé waaw vraiment moo ngi jàppale bu baax ci ci suñu ci suñu ci suñu gox waaw di wax rek que El Hadj nu Sène responsable politique APR est défini comme comme suit Thiès est défini comme Thiès Thiès te Euh, mën nañ koo wax travailleur euh, H humble il est humble I il est intègre E engagé S c'est un social. boo ñëwee ci bourse familiale moo ngi ciy def lu mu mën soo ñëwee ci mutuelle de santé bi moo ko moom moo moo ko def tey ji soo demee ci agence mutuelle de santé CMU benn benn lañ mës a inauguré moom moo ko def inauguration bi moom moo ko def fi boo demee si site bi moom nga fay fekk. loolu firnde la boo xam ne ci li ma lay jox donc toujours projet bu président teg dugal na ci loxom bu ñu demee ci wàllu parrainage bi aussi ñun jël ñëpp na leen jox ko liste boo demee tey ji boo ko vérifié ñu na ñëpp amul kenn ku ci génn zone noor nord damuñu wuti fenn pare li ñu jël yëpp zone nord la ko jëlee parce que fi mu dëkk mënu ma la wax ay milliers laa la wax ne moom lañ déposé jox ko donc kooku jot na nag pour président jàkkaarloog moom aussi remercier ko parce que nit su nekkee sur le terrain di la liggéeyal guddi ak bëccëg jaajëf dafa baax ci nit ki nga delloo ko ko ñun loolu rek la ñuy ñaan président soxla wuñ pour mu recevoir ñu pour leneen ak leneen mais mu jaajëfal suñu leader ba ñëpp xam ne kat remercier na ko parce que li muy def jar na parce que kii jël ay moyens ba moom di pour jàppale la kooku jot na nag aussi nga jàkkaarloog moom ne